alhamdulilah rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursaliin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaiin amma baad mbokki jullit yi ñu xam ne sunu boroom tabaraka wa taala mi ngi wax ne qul li cibaadiya alladina aamanuu yuqiimu salaata wa yunfiqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya min qabli an yatiya yowmun la bayun fiihi wala xilaal nee waxal sama jaam ñi ma gëm ne nañu taxawal julli waaye nañu dépenser ci seen alal yi ci yoonu yàlla ci lu nëbbu ak ci lu feeñ lu jiitu bés di ñëw boo xam ne su ñëwee su boobaa am njaayakum jënd amatul foofa ak xaritoo itam amatul maanaam client amatul xarit amatul yonente bi sallallahu alayhi wa mooy ki jële ci boroomam boroom bi tabaraka wa taala di wax ci benn xadis qudsi mu ne yabna aadama anfiq unfiq aleyk yow doomu aadama ji dépasseel man maay dépassé ci yow maanaam joxeel ma jox la joxeel ma jox la kon mbokki jullit yi joxe fi sabilillahi bunt bu yaatu la asaka moo nekk ca bopp ba ndax ponk la bu bokk ak ponk lislaam yi waaye gën naa yaatu nag loola mën ngaa joxe dara lu tuuti xeeb ko fekk ndekete loola moo lay musal te dina ñëw ci wax yi ñuy wax ci kanam mbokki jullit yi joxe asaka aw yiwam rëy na lool joxe fi sabilillahi it lu mu tuuti tuuti aw yiwam rëy na lool moo tax sunu borom tabaraka wa taala buy soññee ci lu mel noonu dafa wax rek ne wa anfiqu ak alladina yunfiquuna amwaalahum ñiy dépassé seen alal dépassé googu asaka da ci dugg waaye ku amul alal ju mat asaka yi taxul nga ñàkk loolu taxul nga perte téewul am nga loo mën a joxe borom bi nee na wa aqimu salaata wa aatu zaka taxawal leen julli te joxe asaka wa aqridu llaha qardan xasana ngeen lebal seen boroom bor bu rafet wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah lépp lu ngeen joxe fi sabilillah xamal ne loolu da nga koo teg ci benn compte boo xam ne ca sa boroom fa nga koy fekk dara du ca manqué da koy yokk kay waaye dara du manqué moo tax mu ne huwa xayran wa azamu ajra la nga joxe woon lay fay moo koy ëpp ndax alxasanatu bi ashri amsaaliha boo joxee benn yàlla mën na laa fay fukk te mën naa dem ba ëpp loola kon jëmmi asaka dafa doon loo xam ne borom bi tabaraka wa taala bu koy santaane du caagi ni sunu borom moom moo soxla alal ji déedéet huwa alxani sunu borom tabaraka wa taala mooy ki doylu ci ñépp ba soxlaalut kenn dara te ñépp dañ koo soxlaal waaye daf koo def ngir ay njariñ yuy dellu ci seen biir njariñ yooyu bokk na ca moo di ne mépp mbooloo moo xam ne gis nga ne saa buñ amee luñ war a mën a joxe ci asaka dañ koy joxe suñ ko amul luñ am la tuuti tuuti ñu koy def fi sabilillah mbooloo moomee boroom bi tabaraka wa taala da leen di teg ci place boo xam ne mooy palaasu mbëggeel ci moom daf leen di bëgg maanaam ñooñu ñooy ñooy mbooloom sunu borom tabaraka wa ñooy ay soppeem kon nag loolu lu mat a sonne la ndax loolu mooy joxe ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala te ku am ngërëmam da ngay daal di bokk ci ay soppeem yàlla na yàlla jàppandal loola. ñaareel bi moo di asaka su fekkee joxe nañ ko niñ ko war a joxee asaka su joxe nañ ko niñ ko war a joxee jàppal ne ñàkk moom booba société daf fay jóge loolu histoire wan nañu ko ci ay exemple yu bare bari yoo xam ne jataay bu gàtt mënu koo leeral waaye loola moom mooy li wér moo tax benn borom xam-xam day wax ne foo fekk ku ñàkk ab jullit bu ñàkk ci biir société ay jullit foo fekk jullit bu ñàkk ci biir société ay jullit na xamal ne kenn ku bari alal moo sàcc alalam maanaam moo téye wàllam joxu ko ko waaye su ko ko joxoon kon loola du am noonu la lislaam tëdde te it joxe googu fi sabilillahi muy asaka muy sarax wala tur wuñ ko mën a jox mooy tax sun borom tabaraka wa taala defal nit ñi xéewal di wàccee taw yi di wàccee xéewal yi foo làmb rek muy foofa xéewal yi mën a tasaaroo jóge ci kaw asamaan si jóge itam ci suuf joxe asaka itam dafay laabal alal ndax nit ki jamono yi muy sàkk fàggu alalam yombul ab dërëm mën na caa dugg wala ñaari dërëm yoo xam ne bàyyiwu ko xel yoo xam ne na mu duggee du noona waaye su génnee asaka ja joxe loolu moo koy laabal moo tax borom bi tabaraka wa taala bi muy wax yonente bi daf ne xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha jëlal ci seen alal ji jël ci asaka joo xam ne walla sarax yoo xam ne dana laabal seeni alal ba lépp lu tilimoon man caa jóge kon baatu sadaqa la jëfandikoo foofu waaye dafa lamboo asaka lamboo sarax kon ña am asaka nag a génne ci seeni alal asaka mu laabal ko ña amul asaka nag nga génne ci seeni alal wala ñoom ñu génne ci sarax soo xam ne moo koy laabal bokk ci njëriñ yooyu moo di joxe asaka it sabab la ngir yàlla kattanal xeet wi maanaam jox xeet wi kattan boo xam ne li ñu yeyoo ci kaw suuf yàlla dana leen ko jox teg ko ci seen loxo te duñ ca sonn bu boobaa moo tax borom bi tabaraka wa taala bi muy tagg ñi ko gëm daf ne alladina in makkannahum fi l ard ñi nga xam ne suñ leen joxee doole ci kaw suuf suñ leen joxee pouvoir ci kaw suuf aqaamu salaata ñi nangoo taxawal julli wa aatawu zakata ñi nangoo taxawal joxe asaka wa amaru bil maaruf ñiy digle lu baax wa nahaw anil munkari ñuy tere lu bon kon kooku bokk na ci yi nga xam ne asaka moo koy moo koy waral bokk na ci it moo di mbooloo mi nga xam ne dañoo sàggane asaka ñàkk koo joxe sunu borom tabaraka wa daf leen di mere ginnaaw ñi ko doon joxe da dafa am dañoo am ak cofeelam moom sunu borom tabaraka wa taala ñi ko dul joxe loolu mooy contraire bi sunu borom tabaraka wa taala day mer ci ñoom daf leen di mere day wàcce ci ñoom mbugal moo xam ne ma ca jiitu mooy mbugalum ñàkk xëy di dar yi dëkke ko rek te dara doo ko mën a am ndax barke moo fa nekkatul bu boobaa moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ko ci xadis bu wér euh, boo xam ne gën naa gudd kàddu yi waaye dafa ne walam yumnau walam yamnau zakata amwalihim nee na amul wenn askan woo xam ne danañ tere ñàkk a joxe seeni asaka lànk bañ koo joxe mu illa muniu alqatra lu dul ñu tere leen alqatr mooy taw boo xam ne day indi xéewal du taw bu ndox mu wàcc rek de waaye taw boo xam ne daf leen di indil xéewal sunu borom tabaraka wa taala da leen koy tere du leen ko jox mu ne wa lawla albahaimu lam yumtaru bu dul woon bàyyi may yi nga xam ne yàlla da leen bind te ñax lañu war a lekk nee na budul woon loolu kon taw sax du wàcc loolu mooy waral suñu borom tabaraka wa taala léeg-léeg mu wàccee taw bu bari jur gi am luñ lekk ba noppi nit ñi ñoom duñ am luñ lekk benn du ñor wala su ñoree barke du ci nekk nit ña duñ ca jariñu yal na yàlla musal ci loolu kon delluwaat ci joxe asaka ak génne ko joxe aqi sunu borom tabaraka wa taala xaqi fuqaraaw yi ak miskin yi nga génne ko ci sa alal kooku dafay indi féewal dafay musal nit ki ci merum sunu boroom tabaraka wa taala ci am solo goo xam ne joxe fi sabilillahi daf ko am rawatina mu doon lu sel mu bañ a doon loo xam ne lu ñuy lu ñuy xeeb la wala mu doon lu ñuy yéem yalwaankat yi léeg-léeg ñu ne yàlla xeebul yéemul loolu dëgg la xeebul na sell rek lu mu tuuti tuuti baax na waaye nag lu mu bari bari it boo ko yéemee it jàpp lii moom am na solo su boobaa yaa ngay nax sa bopp la ca am solo mooy la sell kon benn dërëm bi ngay joxe mën naa gën million bi nga xam ne keneen joxe na ko lu tax sellaay ba mooy tax benn kilifa gu ñuy wax Ahmad ibn Miskin mu bokk ci boroom xam-xam yi nga xam ne dañ doon dund ci ñetteelu seekalu gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa ca dëkk bu ñuy wax Basra foofu la nekkoon nee dafa am menn at moo xam ne daal ak ñàkk dikkal ko gu mettee metti ba nga xam ne moo soxnaam si ak doomam si yor lu ñu lekk amatuñ ko ñu toog ay fan cin takkul ci seen kër nee na ma ne man de lii pexe mooy kër gi nga xam ne fi dëkk ma jaay ko ndax ma mën a tuxu dem feneen sàkk pexe nee na ma génn di wër kan muy jënd kër googu nee na kilifa gu ñuy wax abu nasr dajeeg man ne ma waaw foo jëm ma ne ko man day dama génn sama kër di dox di wër ku ko jënd ndax ñàkk gu metti nee fekk mu yor yaari mburu yaari mburu nee na mu jox ma ko dama loolu yóbbu ko ca kër ga kon nee na ma wàññi ko ne xaaral ma yët ko gone gi ak ndeyam ndax ginnaaw ay fan a ngi lekkuñu nee na fi ma wëlbatikoo rek dajeeg jigéen joo xam ne dafa leewu gone nee na mu ne ma gone gii ma leewu day ab jirim la te day dafa xiif xiif boo xam ne àgg na ci mënatula muñ man it noonu laa mel kon lii nga yor sa ñaari mburu yii jox nu ci ngir yàlla nee na ma daal di jël ñaari mburu yi jox ko ko ba noppi ne ko sooy boole yi nga téye ko waaye nag tanewuma la ndax la ma bàyyi ca kër ga mooy lu mel ni lii ngeen nekk rek xiif bu metti nee na gone gi xool ma bët boo xam ne euh, duma ko fàtte mukk daldi bég yaay ji itam bég ba rangoñ yi daldi tuuru mu jooy nee na ma continuer dox ak sama loxo kese wër wër ma dara ma dem ba ci benn ruq ma toog foofa di xalaat ci njaayum kër geeg ban marché laa war a dem ak fu ma war a jëm nee na tuuti monsieur Abu Nasr mu di ma ëyu di ma woo éy ne boole ko mbég mu doy waar nee na ma ne ko lan la nee na ma ne ma yow lu tax nga toog fii sa kër a nga fees dell ko yiw nee na ma ne ko yiw lan yiw wi fan la war a mën a jóge mu ne ko dafa am waaju fa ñëw léegi jóge réew mu ñuy wax xorosaan sa baay la doon laaj wala kenn ci ay jege ñaaleem te kooko daal lim yanu ci am koom ci wurus ak oor ak alal kenn xamul num toll nee na ma ne ko waa kooka lu ko tax a jóg nee na mu ne nee na sa baay dafa nekkoon ab commerçant ca Basra moom waa ji mu nekkoon ab commerçant sa baay dénkoon ko alal yàlla dogal mu perte sa alali baay joojee demaale ca mu génne Basra nag moom dem Xorasaan liggéeyi ba am alal yu bari alal joojee ko sa baay dénkoon it mu continué woon di ca commerce muy yokku maanaam na alalam yokkoo sa alali baay yokkoo noona lu mat fanweeri at alal joojee di yokk nee na nag bi mu delsee basra nag mu ñëw di laajte sa kër baay ak kan moo fa des ci njaboot ga ngir mu mën koo delloo sa alali baay joojee nee na bi ba ñëwee ma gis alal ji mu jéggi dayo bari ne fa xamidullah wa shakartuhu ma sant yàlla bu baax a baax a baax nee na la ma jëkk a def mooy wëri jigéen joojee ma dajeeloon ak jirimam ba mu yoroon nee na bi ma ko gisee jox naa leen ci alal loo xam ne moom dana leen doy maanaam ma jox leen lu leen doy sëkk nee na it nag yemuma ca loola continuer rek di joxe fu ma gis ne aajo am na fa rek ma joxe foofa boole koog di liggéey nee alal ja di yokku rek bis bu nekk muy gën a yokku muy gën di joxe mais diir bu yàgg may joxe daal ba mu yàgg ma yëg ci sama bopp ne man mii de yaakaar naa ne xanaa bu fekkee aw yiw rek mooy tax ay balance di fees man samay balance war naa fees fi mu nekk ci yiw kon mi ngi tàmbali di yëg boppam nee na ma am yaakaar ci ne man mii defe naa ne yàlla boole na ma nag léegi ci ñu baax ñi ndax li ma def fi sabilillahi bari na lool nee na jamono yi may xalaat xalaat yooyu nelaw dikkal ma ma gént léegi léeg jaamu yàlla bi gént dana ko jariñ lool ndax dana toll foo xam ne nit ku koy yedd daanaka dootu ko am waaye mën naa nelaw gént doon ci moom yaraange boo xam ne dana tax mu soppi comportement wala mu soppi aw doxin su fekkee gént gu gént yiw la nee na mu nelaw gis ne yowmal qiyaam dafa taxaw nee mu gis nit ñeeg mbooloo meeg tiitaange yeeg njaqare yeeg nee ma gis nit ñi ñu yokk seen yaram yi ba mu toll ne ba mu rëy ba ëpp nee na ma gis seen bàkkaar yi ñu doon def ñu koy soppi mu doon ay jëmm ñi di leen ko yan mais ba ma gis ay nit ñoo xam ne sax ay dëkk lañ leen yan maanaam lu toll ne ab dëkk ñu yan ko nit ngir bàkkaar bu bari nee na ñu tàmbali nag di peese nag ñaaw téef yi ak jëf yu rafet yi nee na ñu indi ma ci biir gént gi nee na ma gis ñu di ma peeseel ñu jël ñaaw téef yi teg ko ci balaas yi nee li ma yaakaaroon lépp ci jëf yu rafet ñu teg ko ci balaas bi ci des waaye taxul mu yëngu ñaaw téef yi mel na meloon nee na ñi gëstu xool yu baax yi ma doon def di ca teg di ca teg di ca teg ba jàpp ne jeex na dara yënguwut ñaaw téef yi nekk fa mu nekkoon nee na ndekete taxta kulli xasanatin shahwatun xafiya nee na ndeke woo yu baax yi ma doon def yépp lu baax lu ma ma mas a def lu nekk am na gis sa bopp gu ne ca suuf am na sa bopp gu ne ca suuf man de maa mel nii man de maa def nangam man de maa def nangam man de nag war na maa àgg ci nangam nga xam ne boo wéeteeg sa bopp loolu ngay wax ndeke boobu jëf jaa ngay yàqu wala iyaasu billah nee na lu mel ni gis talak woroog tagg sa jëf fa nit ñaag nee na ndeketi li ma doon def lépp dara teguwu ci ci aw yoon nee na ma jàpp ne man de kon alkunaa nee ma dégg baat buy wax ne alam yabqa lahu shay waaw ndax desewut dara nee na am ku ne oxo kay am na lum dese de nee na ma wax ci biir gént gi ne man lu may war a dese lii ma def lépp su fekkee ne amul njariñ fan lay jëli lu am njariñ nee nañu ne day ñaari mburu yam joxoon soxna sa daal moo fi des nee na jël ñaari mburu yooyu teg ko ci mu daldi yëngu ba ñaaw téef yi ak yu rafet yi daldi tolloo ba noppi yu rafet yi xaw koo not tuuti xaw a gën a diis nee na jël rangooñi jigéen jooje mu jooyoon ngir bég nee na balaas bi daldi daanu lu rafet li daal di féete suuf ñaaw tii fay féete kaw nga xool loolu nee na bi loolu amee nag ma xam ne kon ndekete jëf yi may jëf li muy bari bari bari lu selle ne ñaari mbër yooyee ma jox ndaw sa nekk ku ci woon kon foofu bind bu rëy nga fa mbokk jullit yi boo xam ne moo lay jox ne jullit bi lu rafet la muy def lu baax la muy def ba jàpp ne lu baax la bu mu ci waru mukk ba ne maa def nangam wala mu damoo ko ci biir aw nit wala làmmiñam tudd ko su ko defee rek ma nga yàq jëfam danañ ci jariñoo ne du caagi nit baaxle fa yàlla alal ju bari doo nga ko man waaye lu tuuti man na ko waaye day fekk mu sell te yàlla tax te boroom gisu ko kon moom lam yaakaarul woon jamono yom amul dara loolaa ko musal bi mu amee ba bari le yi mu doon def fi sabilillah yépp bi mu ko xoolee amalu ko benn njariñ ndax fekk na yàlla taxu woon kon lii mooy dëggal waxi yonente bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne moom laa def mu nekk tiitaru xutba bi muy walaw bi shiqi tamra ragalal yàlla sellalal na yàlla dong tax doonte li ngay joxe dafa doon benn doomu tàndarma nga xaajale ko jox ki jox ki jox ki waaye na yàlla tax kon lu mu tuuti tuuti rek bu yàlla taxee loola mën na laa musal xam ngeen ne weer wi ñu nekk weeru muharram lu bari ci jullit yi ci lañuy ñuy génne seen asaka mu doon e, jëf joo xam ne ju am njariñ la ci jullit bi ndax ci ponk lislaam yi ci la bokk e, ñeneen ñi danañ ci génne seen asaka ci weeru koor loola itam lu baax la ndax weeru joxe la waaye képp ku joxewut woon sa asaka ci weeru koor nga xam ne weer wi kon mooy weeru asaka wi seen mbokk yi nekk fële ca fon sénégalais pour la zakat euh, dañ faa nekk ngir jàppale leen ci lu mel noonu ba lépp lu jóge ci ay alali asaka wala alal yi ñu joxe fi sabilillahi te boroom bëggu caa feeñ sax wala mu bëgg koo organiser noo xam ne dana tegu ci yoon àgg ca ñe ña ko yeyoo dëgg dëgg dëgg dëgg lépp loo xam ne teg na ko ci seen loxo loola danañ ko jàllale yal na sunu borom tabaraka wa taala jàppandal loola te defal leen tawfiq ñoom itam ba liggéey boobee ñu mën koo taxawee na nga xam ne noona la ko lislaam bëgge allahuma aqsim lana min xashyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna maasik wa min taatika ma tuballiguna bihi jannatak wa min yaqinika ma tuhawinu bihi alayna masaaib addunya allahuma matticna bi asmaacina wa absaarina wa quwatina ma axyitana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 Euh, concours bi nga xam ne moom lañ doon def bu jëm ci wàllu xam-xam euh, te euh, prix ya nga xam ne moom lañ cay joxe am ca ñaar yoo xam ne aji màkka la woon ñooñu yàlla dogal na ñoom aji nañ ba dikk waaye dafa amoon yeneen prix yu des yoo xam ne seen boroom warees la leen a xam bu ci kanamee tuuti kon ñu xaar ko tuuti buñ sëlmalee mbokk yi organiser ko ñi ko yeyoo ñu jox leen ko ci kanam mbooloo mi muy tiraanga joo xam ne lislaama leen ko jox ak xam-xam su ko defee ñu tàggoo ca loola ba waxtu wa del seeti rek euh, ñu jaaraat ko fañ ko daan jaar insha allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain